Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. mbokk sénégalais yi maa ngi leen di nuyu ci alxamesu tay bi nak di ñew di def vidéo bu gaaw di leen ñaanal ci at bu bees bi yalla nañu jik yalla na gën ci ñun di ñaanal sénégal fa jam di ñaanal gardien de la constitution di ko ñaanal yàlla lafal ko chat musal ko ci bi ak bi video bi tay nak dama bëgg video bo leen mës a share bila la bëgg ngeen seeral mako ba tegal ma ci loxo yaana mar niggas man mani ngeen dem wuti liggey dem leen ngeen wuti liggey ay góor ngeen yeen xalaatu leen retraite xalaatu leen am jabar ki ay doom dangeen a réew tekkiwu dara ca dëkk ba rabu leen lu ñu xam wayu lu ñu xam réew ngeen def sama doom day man bëgguma ma xool ci yéen benn forox ngeen tilim ngeen seeni kalson nëpp na amu leen yére ban doomu aadama moo bëgg doomam roy ci yéen yana dangeen a ñàkk jom nag te ñàkk ngor keroog bañ leen jàppee ca maki Macky Sall moo leen fa jëlee ndax seen bon ak seen tilim ak seen gesta ak seen ñàkk jom nii ngeen di def nag defoon ngeen ko lamin Diack mu wax leen wax bu rëy ni leen da a yaruwut dem leen defi DNA ñu ci bari maay seen baay ñii maleen leen ngénte dangeen a réew Macky Sall du sen morom sénégalais yu duñ sen morom li ngeen nekké yabaté gi ndax ta ngeen joxu ñu len ko ba ñu leen joxee ngeen wër Afrique di yalwaan ni da ngeen di def social fan ngeen mujjé jënd ci ay auto, def ci ay tiset di bind suñu miri Sénégal di jangal xalé yi lu bon parce que wax len ak wa dara ji family ñoñu di yéeg ci seen yu bax yi di dem ci télé yu bax yi di woné drapeau Sénégal yéen yana mar ci adina bi weesuwu leen Kaolack ak Dakar googu wu len ko kenn xamu leen sénégalais yi ngeen di imposer seen bop xam nañu lan ngeen bëgg tekki wu len dara ña leen dàqara ba nga biir Sénégal xalé ba nga Sénégal ak adina ak Europe lu bandi di nirool ak lu war a nekk jikkoom wax leen a xale boobu kooku mooy lëkk dëkk bi ak daara ji famille tekkiwu leen dara li leen naqari na xam naa ki leen ko teg daara ji famille mooy tukkal àddina seen xol bon ñooñu boo gisee ñu ngi correct di sol yu baax yéen solu leen yére seen seeni kalson nëpp na def ngeen ni jodd moyal seeni gémmeñ xoole seen kilip bu bon boobu yéen ay ay golo ci àll lay ne di def lu bon di yàq mooy yéen yéen goloo leen tane ci àll yaanaa ma réglé leen ñun xam nañu lépp kaw Kaolack waaye la leen Lamine Diack waxoon mi ngi fi ndax seen réewande genn wàll gi yëpp seen i baay ngéntewul leen Lamine Diack leen ngénte ñi ci des nag nee na ngeen laaj seen i yaay da ngeen a réew ñoo leen gën a réew loo leen wax Macky Sall ñu wax leen lu ko raw tekkiwu leen dara démb a tey mani ngeen wax ci daara ji famille ak lu bandi di nirool ñooñu ñoo xew tekkiwu leen dara te ngeen sangu ji seen yaram yu tilim yooyu ñun bëgguñu koo gis bon ngeen doo leen maaral yu baax aw maag yéen benn affaire te sénégalais amuñu ak yéen affaire seen ngeen bëggal dara sénégalais yi nee nañu dañu maar ci yéen barki démb ngeen fi génn xas sunu kilifa diine yi saaga sénégalais ndax ñu ci seeni forox ak seeni tilim ak seen i ñàkk sangu ak seen ñàkk yére ñun suñuy doom bu ñuy roy dañu bëgg ñu roy ñu baax ñuy sol yére sénégalais ak yére yu baax pour ñu mën ci roy mais yaramu neen solu leen lu baax ñàkk jom wengal ay mbaxana ni da ngeen di saaga sénégalais ni da ngeen di saaga président bi yéen a bon yéen a alku yéen a tekkiwul dara wut leen retraite pour ëllëg seen njaboot gi salut seeral leen ma ko nañ ko jot